asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ñi ngi nuyu mbokk jullit yi di leen jox seen wàccuwaay wi ñu am waaye di ñaan suñ boroom subhaanahu tabaraka wa taala sunuy kàddu fekk leen ci jàmm ak yërmandeem ak njéggalam ju matale ginnaaw sunu nuyoo nag mu mel ni dañuy dellusiwaat ci suñu jotaay ak yóbbalu ndaw mi muy jotaayu xam-xam comme niñ ko baaxoo di waxee waaye di jotaayu fàttali sunu suñu bàyyee xel nag suñu jotaay bi weesu ñu ngi doon jàngale lan mooy faratay jàpp ak lan mooy sunnaay njàpp kon nag dañuy jël si ci suñu jotaay ngir mottali li nga xamte nii boo ko fàttee ci mbiir jàppali nan nga koy defaree moo xam da ngaa fàtte farata wala nga fàtte sunna bismillahi rahmaani rahim moo tax mu tàmbalee fii kon sunu bind tey mu ne wa man nasiya ku fàtte minal aada yi ci cër fardan farata fal xokkumu ab atteem fi zalika ca loolee xokkumaani ñaari atte la ayaa wattul fa in yakun neem nekk na bi xurbin ci jege xatta zakkara goog fàttali nga ko faalahu kon def def ko <clears throat> maxalle ji ànd ak la nga xam te nii daw na baax da ci ginnaaw jaraa daw na nag mooy xew la rek waaw jaraa daw na mooy jaraa xew na mooy li nga xam ne xew na ba pare mais wa in yakun nem nekk na min ba'di tuuli ni ci ginnaaw yàggub jamono faalahu kon nga def ko bi niyatin ci yéene fal tax tani na nga sonne xam-xam lakinnahu waaye nag alayhi war na ci moom an yoxee damu baaw maa la nga xam te nii salla julli woon na ko min xablihi ci ak njëkkam li tuxrin ñeel ak laab woddima goog ñàkkeef na ko mu ne koo xam te ni dafay jàpp fàtte benn cër ca njàpp la te cër boobee mu fàtte nekk cër boo xam te ni farata la waaye ginnaaw ba mu jàppoo ba pare mu fàttaliku cër boobee nga xam ni yàggut mu fàttaliku ne moom fàttali ne ab cër boo xam ni waroon na ko raxas te boobee farata la mën nañ koo joxe misaal ci lu mel ni mu waroon a raxas loxo càmmoñam ginnaaw bi mu raxasee loxo ba ci conc li wala raxas beneen loxo ba ci conc li mu fàtte ko bi ko fàttalikoo nan lay def te fekk yàggut bu dee yàggut day raxas cër boobee ànd ak yéene mottali njàpp li bu ko raxasee ba pare teg ca la ca waroon a topp ba àgg ci tànk ya ndax tànk yi fa njàpp li yam kon bu raxasee loxo ba ci misaal day rax day masaawa day masaawaat bopp ba teg ca masaawaat nopp ya raxas tànk ya njàpp li mat kon dafay raxas cër ba mu fàtte teg ca la ca waroon a topp ba jeex mu ne nag bu fekkee ne dafa yàgg nag kon moo taxoon mu wax la looloo taxoon mu wax ne la ñaari àtte la kon bu fekkee dafa yàgg nga xam ne fàttaliku fàttali ba mu koy fàttaliku fekk na mu yàgg lool kon boobaa nag dafay dem raxas cër ba mu fàtte rek daal di daal di yem ca cër kon du raxas cër rek lay def daal dem kon bu dee yàggut day raxas cër ba baam ta la ca waroon na topp ba jeex bu dee dafa yàgg nag day raxas cër ba rek daal di dem waaye nag bu fàtte ne raxas yëpp day ànd ak yéene mottali njàpp la. waaye nag bu fekkee daf cee julli woon bu doon dafa julli bu pare bu raxasee cër boobee ba pare day dem xool lam julli mu baamtuwaat ko ndax julli ga li tax julli ga mooy njàpp li ndax dafa fàtte kon dafay raxas ba mu fàtte dem baamtuwaat lam julli woon mu ne wa in fàtte na sunna tan sunna yaa rajul yow waaja faati boog faat na ko bihaa ci moom li ajli ma kem la nga xam te ni yastaqbilu dana jublu wala tuxiidu déet muy baamtu maa la nga xam te ni mala wéy na wa faata faat na ko li annahu ndaxte moom laa yubtilu du yàq asalaata julli ga mu nekkat bu fekkee nit ki dafa fàtte sunna xam nga waxoon na la fàtte farata léegi léegi bu dee dangaa fàtte na nag mu ne bu fekkee fàtte nga na de bu jar ngay baamtu julli ga nga julli woon ndax na sax na ga du yàqu julli kon farata mooy yàqu julli waaye sunna gi du yàqu julli kon doo baamtuwaat la nga julli woon lenn kay ngay def mooy dangay dem raxas cër ba nga fàtte woon tamit na li tax nga koy raxas sax mooy dañoo bëgg njàppale mat ngir yeneen jaamu yàlla ya nga ca war a defaat bu doon da ngaa julli war cee julliwaat kon nag demal raxas ko mottali ko mu nekk njàpp loo xam te ni sum na la mat na farata ya mat moo gën a rafet waaye nag du jar ngay baamtuwaat la nga jaamu woon yàlla waaye da koy def rek ngir yeneen jaamuwaat yàlla yaa ngi a defaat sa nga njàpp li yaa ngi ko yoree te bëgg nga cee jaamuwaat yàlla kon na nga mottali na sa kon loolu rek lañ ci jublu bu fekkoon sax jàppali bëggoo cee defaat ak jaamu yàlla nga xam ne jàppali moom julli nga ci ba pare waaye fàtte nga ci sunna te waroo koy defaat jaam yàlla kon boobaa sax du ko du ko jar boobaa du jar ngay mottali sunna sax te du yàq julli ko it yañ ci julli woon mu ne wax in na siita neem fàtte nga nag lum ab dëneer dëneer nag mu ko waxee mooy fàtte nga benn ab lu tuuti rek ci benn ab boo xam farata la nga xam ne raxas nga cër bi waaye dañ cee fàtte tuuti loo xam te nii si euh, ndox ma laalu ko moo tax mu ne minal ba ci yaram ci yaram wax faxsilha na nga ko raxas moom mais wax daha moom dong nag bi niyetin ci yéene isan boobee summa xalayka topp mu war ka an toxiida mu baamtu kullama lépp loo xam te ni sallaytahu julli woon na ko min xas xaslin njëkk raxas ga xottima goog waral waraleef na ko mooy nag bu fekkee dafa fàtte ci yaramam maanaam ci misaal dafa war a raxas cër boo xam te nii ci biir njàpp li cër lii cër bi cër boobee mu war a raxas farata la raxas na cër ba nag waaye dafa fàtte tuuti loo xam te tooyut waaw dafa fàtte ci cër ba loo xam te ni tooyut waaye raxas na cër ba mooy lu tuuti kon boobaa day jàpp ne cër ba ca boppam ci cër ba ca boppam la bàyyi ndax loolu day taxaw day nekk taxawaayu bàyyi ab cër bu dee farata kon day jàpp ne cër boobee yëpp la bàyyi donte li muy tuuti tuuti na jàpp na cër ba yëpp la bàyyi bu dee nag daf koo fàttaliku na dem raxas loole te ànd ak yéeni bu dee tuuti lu tuuti loolee du jar ma raxas cër ba de lu tuuti lool rek lay raxas te ànd ak yéeni bu ko defee rek njàppale mat waaye nag bu fekkee daf caa julli woon ca nam la waxee woon boo fàttee ab cër boo xam te ni farata la nga julli woon ca boo ko fàttalikoo ba raxas ko ba pare dangay ngay dem baamtuwaat julli yang ci julli woon ndax jàpp la matut ndax farata nga bàyyi kon bii tamit noonu rek lay demee mu ne wa in sakarta neem fàttaliku nga sunnatan sunna baax dastur waxi ginnaaw tàmbali ga fii wajihi ci xar kanam ga kastin saaxi lu mel ni sar saraxndiku falaa rajo wax déet dellu min xabli tat tat mii ka njëkk sag mottali laakin waaye nag yaa fataa yow cams muy yow nit ki fii zalika ci loolee xul fal boroom xam la xam-xam ya xada ata dikk nga ne yaa yow cams xul fal ulama yi xam-xam ya xada ata dikk na fii zaaka ca loolee mu ne bu fekkee da ngaa fàttaliku sun te bi ngay fàttaliku na yaa ngi jëm ci farata ci misaal tàmbali nga jàpp di jàpp ba yegg ci wala def bakkan ba nga fàtte def bakkan bi ñëw ci xar kanam gi wala sëlmu xam nga xar gi fa la farata ya tàmbalee boo yéenee raxas xar kanam fa la kon ñu ne nag du jar ngay dellu di raxas di raxas bakkan ba di déet yaa ngi jub farata da ngay continuer farata sa xar def ci la ca topp ba jàpp la yegg boobaa loolu rek ngay def jàpp la baax du jar ngay delluwaat di fàttaliku bakkan ba dem di ko defaraat déedéet loolu mooy li gën a wér li tax mooy la wuuteeg borom xam-xam yi nag am na ci mooy am na ñoo xam ne nee nañ da delluwaat raxas bakkan ba door a ñëw raxas kanam kon loolu la ci wuute gi am waaye nag li gën a wér mooy booy raxas ba yegg ci bakkan misaal ba fàttalikoo fekk nga war a def farata muy raxas kanam doo bàyyi na sa de doo bàyyi farata di def sunna da ngay continuer rek njàppale boobaa dina baax loolu mooy li gën a wér waaye teewul nag borom xam-xam yi wuute nañ ci waaye mu wax la ko ngir nga xam ne wuuteeg borom xam-xam am na ci kon lool foofu la bunt bi fàtt wax ci wàllu fàtteeg njàpp foofu la ko yemale kon loolu mooy nit ki bu fàttee ci njàpp farata wala mu fàtte ci sum na nan la koy defaree kon lii lu jar a bàyyi xel la lu am solo la ndax nit mën na di ñàkk di fàtte rawatina ci wàllu diine moom dafa war a farlu lool def ci kemtu lay kàttanam fexe ba xam bu yàqoo na koy defaree ak xam ci jëmmi loolee muy def nan la ko suñu borom santaane nan la ko yonente bi sallallahu alayhi santaane loolu moom jullit bu nekk war na koo xam rawatee nag lu jëm ci wàllu julli ndax julli lu am solo la ponk la bu am solo ci wàllu lislaam ponk la boo xam te ni bu ko ab jullit defut rek mel na ni màbb na lislaam yëpp kon nag julli lu am solo la jot a bàyyi xel la kon nit ki war naa fexe ba xam ni mu koy defaree muy wàllu njàpp ak tiim ak julli gàtt lépp mu xam lu ca yàq na mu koy defaree ku ci farlu rek di nga ko mën ndax li la wut alal jaral wut jàmm jaral la ko sa bakkan bii jaral la ko nga xam ne lu mu bëgg nga fexe ci def sa kemt lay kàttan ngir def ko nga xam ne tey jii boo amul ay yitte yoo xam ne sa bakkan bii rek la aju dina la jaral lu nekk jaral la teel la xëy fajar wala mu jaral la guddee wàcc lool te loolu àdduna rek la kon noonu mu la koy jaralee bu la ko xam lu sa diine jaarale di nga ko man mu la wut alal jaral bu la ko xam lu sa diine jaarale dinga xam sa diine walla yi di nga xam la nga xam te ni moo la ca war na nga koo na nga a defee kon nañuy bàyyi xel bu baax ci farlu ci wàllu diine rawatina li nga xam te ni mooy farata yi suñu borom dénk kon ni ngi ñaan suñu borom dégg ak topp nangoo ñu suñuy jaamu yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar moo xam yu feeñ moo xam yu nëbb ñu ngi wàcc kàddu yi wax ne in uridu illa al islah masataxtu ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh